Assalamualaikum yeen wa fas berigo man dam kan fas berigo ma ngi len ni di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen teway yeen ñep tay sunu tawatu tay moy forasu fas berigo fas berigo nak histoire am mi ngi deme ci 1979 japp 80 lañ ko gasson fi ay mak taxawon daman ko bañ may len ko ñu ñew bëgg leena andil machine pompe.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 problème bi ne mooy Félix Doulo dafa toog muy dox te toog muy dox ji dafa war a jeex ñun un niveau forage la ñu bëgg Fass Bérégout Sène forage bopp la ñu bëgg ba nga xam ni ci magistère Bassirou Diomaye fay danañ ñu ko organiser ba doomi dëkk bi yor ko ba ëllëg bu ñu amee problème forage ñu gasal ko suñu bopp ah ah ah loolu la ñuy xaar ci bi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 Euh, administration bi organiser ko ñu dem loolu laa li wax jënjaay ndox mi am na ci ñoo xam ne 24 heures sur 24 yi dañ koy rootaan yi am na ci ñoo xam ne minuit la ñuy jóg di di di duy ba 5 heures du matin ñu boole ko xëy di liggéey yi. loo moolkat yi moolatuñu tabaxkat yi tabaxatuñu fi mu toll nii daal li ñu dund dooy na waar métti na te président de la république nañu ci andi solution. wasalaamaaleykum. bu méttee métti.